الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم إلهنا أشرقت شمس ذاتك فمحت نجوم الكائنات وظهرت أنوار صفاتك فكشفت حقيقة افتقار المحدثات وتجليت بأسمائك في كل حركة وسكون وما من آن إلا ولك فيه شأن من الشؤون لك الحمد عدد ما كان وما يكون إنما أمرك إذا أردت شأن أن تقول له كن فيكون يا أئمة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di di jéggalu xëy na ci bis bu ñu ñëw tey ak heure bu ñu ñëw waaye li ko li ko waral li ko waral ko waral ndax dañoo bëgg a waxtaanee kenn ci ponk yi nga xamante ne ni ponk xam-xam la ponk diine la Euh, j'espère que son bi mu ngi leer bu baax parce qu'on me signale que son bi dafa xaw a am problème je sais pas bu fekkee son bi mu ngi leer ma continuer sinon ma jéem a takk micro et xool nu may def s'il vous plaît donc faites-moi signe balaa may continuer ndax euh, son bi mu ngi leer. <coughs> son bi baax na wala. <coughs> voilà euh, xam naa kon euh, mbokk yi nga xamante ne nee nañu son bi leerul nañ ma dimbale ñu xool seen seen téléphone yi wala ñu yokk volume bi donc ma ne dañu bëgg a waxtaanee kenn ci ki nga xamante ne ni ponk la ci ponk xam-xam yi kilifa la ci diine kilifa la ci tariqa kilifa la ci faydu te yàlla jëlee ko fi euh, ci semaine yi ñu génn muy oustaz Ahmed Ibn Mouhamed Ba at Tijaani al Ibrahimi. Eh, radiallahu anhu wa rahimahu wa qaddasa sirahu mu nekkoon kenn ci nit ñi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla pays Baye daf leen daan tiitaroo kenn ci ñi nga xamante ne nii tariqa tijaan daf leen daan tiitaroo kenn ci ñi nga xamante ne diine lislaam daf leen daan tiitaroo kenn ci ñi nga xamante ne nii humanité doomi aadama nekk nit tout court daf ko daan tiitaroo dafa am yenn ci nit ñoo xamante seen dundin ci àdduna même bu fekkee benn fan la ñu dund du pertement am ñoo xamante même bu ñu trois siècles wala cinq siècles daanaka seen dund gi xabaa an la yal nañ ci musal alors euh, oustaz Ahmed Ba néew na ci pays Baye ci Dans ci soufisme ci jamono ji ñu

maanaam ñu bari xam nañ waaye ñoo gën a kii donc xam ba pare tegu ci yoon wa di jàng di jàngale nekk ca la mag ña nekkoon ca la bàyyi nekkoon ca la nekk mooy jàng jàng jàngale ak jaamu yàlla ak liggéey alors xam naa nag man am na lu ma boole ak moom lu baree bari loo xamante ne nii lenn li waxu biti la lenn li waxu biir néeg la ndax yàlla defoon mu am cofeel ci man cofeel bu jagu man tamit ma am cofeel ci moom cofeel xaas saraxatan

façon waxinam façon jàngalinam dafa ma convenir dafa dëppoo ak li nga xamante ne man moom laa bëgg a jàng dafa dëppoo ak li nga xamante ne moom laa a dégg dafa dëppoo ak li nga xamante ne moom laa jàpp ne ci loolu la bàyyi nekkoon <clears throat> jóge na fi ci jugee bu bett ñëpp kenn xaaru ko woon ci jamono ji waaye nag qaddara allahu wa ma shaa faal yàlla nit ñu baax ñi la fi jëlee jamono ju nekk bàyyi fi أباليسي أك شياطين يك يهودي فدمر يهود القدس كم نكو باي نياني مو باي لين في ak ñi nga xamantene seen nekkin ci àdduna am indiwut indilul aduna bi lu dul bekkoor ak musiba ak fitna ak guerre ak ay feebar ak ay ñu kenn xamul seen nekkin ci àdduna bi waaye nag ci xikmaam moom yàlla daf leen fi bàyyi ñu gudd fan sanastadrijuhum min haysu la yaalamuun ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo baax moom yàlla ni leen nit ñi soxlaa ci àdduna bi moom moo leen gën a soxla te ñoom nit ñu baax ñooñu tamit xaaliban dund àdduna bi dafay nekk fitna ci ñoom dootuñ ko bëgg àdduna bi dafay xat ci ñoom ndax sufiyanke dañuy wax ne àdduna dafa mel ni ci nit ku xam yàlla ak nitu yàlla dafa mel ni picc bu nekk ci cage boo xamante ne li muy bëgg yëpp mooy mu génn dellu ci espace ak univers bu yaatu bi nga xamante ne ci àll yi ci garab yi dara tënkul ko kooku foofu la yégee boppam mais bu nekkee fii ñu jël jëmm ji roox ko ci benn jël rooxo bi dugal ko ci benn jëmm jël jëmm ji dugal ko ci benn couleur jël couleur bi jox ko benn nit ak benn maanaam benn tur ak benn sant dëkkale ko ci benn réew ci réew mi ñu dëkkale ko ci benn région région ba ñu dëkkale ko fa ci benn dëkk boole ko ci benn kuréel maanaam xijaab yooyu noonu yëpp di taraakum ci kaw nga xam ne xijaab sur xijaab sur xijaab dafay dem ba ku xam yàlla ki loolu yëpp daf koy déranger finalement li mu bëgg rek mooy xatta wala wama iza xanna al mahbubu wala wama iza sharafa al mahbubu xanna ila al maana aw kama qaal bu demee ba mbëggeel gi sax ba mbëggeel gi yëngatu dafay bëgg a dellu ci maanaa gi mu nekkoon nga xam ne foofu espace amu fa temps amu waxtu amufa couleur amufa sante amufa amu amufa tur amufa melo amufa dara amufa fa lu la fa nekk dëgg kese ala yéti hal xam naa ay taalibeem yu ma gëna xam parce que ñom ñoko gëna fréquenter man j'ai eu à le fréquenter mais pas pas pas comme ni ko taalibeem yi fréquenter yalla def na teew ci ay xadaraam par l'entremise kenn ci suñu xamé bo xamantene c'est un ami en commun buma amone ak mom ndeysaan jour boobu maa ngi fàttaliku def na ay bayit ci man ak euh, taalibeem bi di Ibrahima Thiam Raïs ñun ñaar la boole bayit yi ci wax ci ay wax yoo xamante ne man jàpp naa ne ci mbaaxam la ak ci kawe waaye ak maqaama Ibrahima Thiam waaye man yegguma foofu li mu fa wax ci ay seede yëpp Ibrahima caam moo ko yelloo ak euh, moom mi nga xamante ne moom moo wax wax ji ba pare tamit modestement mu joxoon ma fa kàddu ginnaaw loolu dajee nañ ci ay place dajee nañ ci aéroport dajee nañ ci kii mu nekkoon nit koo xamante ne man saraxatan li ma mën a bokk na ci li ma mën a témoin ci moom mooy c'était quelqu'un qui ne change pas une personne sans couleur te loolu mooy dëgg-dëgg wàllu yàlla maanaam saa boo ko gisee yaa ngi gis bachachatu ci moom yaa ngi gis muuñ yaa ngi gis reetaan yaa ngi gis confiance ci moom bokkut ak nit ñi nga xamante ne da ngay ñëw ci ñoom tey ñu ñu nekk ci benn xaal jalaal takk seen kanam gi jaxase ko ba mel ni maafe bu fanaan boo waxee ñi lay ñi ñi lay xeeloo ko rege joo boo waxee ñu naan sëriñ bi dafa jalaal sëriñ bi dafa tëju non alors imaam Ndagga taalibeem la yaakaar naa imaam Ndagga daara ji miin nañ ko euh, ku dégg ni muy waxee ndax yaru sëriñ danay rogaat ci taalibeem bu fekkee taalibe bi mbëggeelam ci sëriñ bi dëggu na كم نيكو باي وخي بقدر ما تحبه تنالو امداده ولا تنالو كم نينكو بغي ولا كم نينيو بغي سيرين بي تي امي اي اي مددم من اوما سيك تي امام داغا مبغي لام دغ نا استاذ با دا غيسنا اي جوكوي استاذ با مو رويات تي موم الوغ خمنا ني موم لا ني سيق ak jotay bi inshallah amna ben mbok bo xamanteni tamit ko استاذ la euh سيد ابو بكر كا bi nek bëggoon naa mu dugg moom tamit mais dafa mel ni nekkul en ligne jéem naa ko jot xëy na bu dul tey dinañ amaat beneen jotaay incha allahu taala pour mu mën a dugg moom itamit mu waxtaanal ñu ci oustaz mi mu xamoon dund ak moom parce que itam oustaz dafa dund ay jamono yu métti voilà duwut ne dafa jékki-jékki rek am këru boppam am ay taalibe am mbooloo dafa jaar ci ay jaaruwaay yu métti te dafay baax léeg-léeg ñun taalibe yi ñi ñuy fàttali loolu pour ñu xam ne àdduna bi xëyut xëy rek sotti. maanaam du ne da ngay xëy tay rek war a nekk kilifa war a am ay soxna war a am àdduna war a nekk di duggante ak président yeeg buur yi war a am ay milliards wala ay millions boo bëggee lu baax dafa am moment de difficulté yooyu traversé Baye Niass jaar na ci Cheikh Tidiane jaar na ci Cheikh Ahmadou Bamba jaar na ci Sidi Hadj Malick jaar na ci ñoom Imam Hassan ñi ñëpp jaar nañ ci oustaz ba jaar na ci nekkoon na fii Sacré Cœur ci daara yaa maanaam bu ñu ne ba toll na jamono lu bari ci dundab loo xam ne benn néeg la amoon boo xamante ne dafa doon bokkaate imagine loolu kër jàmbur la dëkkoon bokkut ak opulence ak luxe bi nga xamante ne tey jii kenn ku nekk moom lay wut ba fàtte yàlla ba fàtte xam-xam imam dagg xaar ma xool ba xam euh, j'ai trop parlé te wax ji solo si bëriwut bu fekkee imam dagg mu ngi en ligne incha allah ñu dugal ko xam naa nag dinañ waxtaanee ay jawaanib ci dundu oustaz ñi xam euh, un peu ci biographie am waaye tamit ñu waxtaanee quelque ci tasawuf bi lekk waxtaan bi xam naa du fi xaj tey yépp danañ def première partie s'il le faut samedi on revient ñu def deuxième partie fekk Aboubacar Ka nekk en ligne ñu dugal ko moom itamit parce que ku xam oustaz la bokk na ci ñi gën a xam sa saraxatan te dafa yàgg moom maanaam ba dara doontee dara xam nga nag ku la xam depuis ba ngay ba ngay toggal sa bopp ay indomi di toggal sa bopp ay kii di ataayal sa bopp yooyu kooku moom moo la gën a xam ñi nga xamante ne dañoo toog ba euh, vingt-quatrième heure bi ñëw fekk ñoom imaam ndàgg ak ñoom ñëpp ñëw moom dafay ñëw rek di la seen dalwaay imaam bu fekkee yaa ngi fi baal ma nga yónnee ma demande parce que gisuma la ci ci liste audience bi naa <coughs> ngi jéggalu ci sama baat bi ni mu xawee sant si tey nag dama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

waaw ñu ngi ñu ngi mbokk yi seetaan live bi yëpp di leen ndokkeel. Mm-hmm. di leen tatagal. bismillah di wax ne. Eh, di wax ne waxtaan yi ñu mës a def yëpp bii moo ci gën a jafe. Mm-hmm. pour euh, euh, li nga xam ne moom lay moom lay àndaaleel comme émission ak lépp ñu ñaan yàlla mu may mam ñu am tamkiin boo xam ne dinañ ko mën a dinañ ko mën a yeggali jusqu'au bout. Euh, amiin comme ni nga waxee. oustaz kilifa euh, la goo xam ne kilifa bu bu mat la kilifa baax la daal bu baax la koo xam ne lépp lu ñuy mën a nattee sëriñ rek mën nañ ko mën nañ ko natt ci moom di wax ne ah. euh, voilà euh, émotion yi xaw na xaw na bëri instant bon am na ñoo xam la laajee pour nga pour nga ñëw waxtaan moom doo ko mën bañ te yow ci ñooñu nga bokk te comme ni nga ko waxee euh, oustaz euh, joxoon na la cër bu bu kawe euh, man bokk naa ci ñi mën a seede wax yu rafet yi wax ci yow ab au delà de abiyaat yooyu noonu kon boo ñu laajee ñu ñëw pour waxtaan ci moom ak lu metti metti incha allah dinañ ko def yàlla yàlla defal ñu tawfeex ci loolu ak tey taas ñu ci barkeem Amin. Hmm. Bismillah Ustaz, eh, premier première première question bi ñu la njëkk bi ñu la bëgg a njëkkalaat ginnaaw bi ñu la ma sawaatee ak ya. hmm. xam nañ ne moment yi difficile la man ci sama bopp ci première hmm. semaine bi wax dëgg yàlla j'évité même de kii parce que xam naa ne c'était trop fort mais quand même euh, qaddara Allah wa ma sha'a faal euh, dañuy dañuy fàttaliku jamono bi ñu ñàkkee Baye Niass ñàkk Alaaji Abdoulaye man sarahatan mm. imam lii c'est une confidence que je vous fais vous tout que je que je àdduna oustaz ba frappé na ma façon boo xamante ne dee gën na mm. ma na depuis ci imam Hassan ak oustaz Barham Diouf deux mille deux mille deux mille huit ak deux mille quatorze mm. sarahatan imam Hassan bi muy génn àdduna Medina la ma fekk oustaz Barham Diouf la ma fekk mais ñaari génn àdduna yooyu niñ ma frappé gëj naa yëgaat lu mel noonu ba keroog bi ma toogee ci chaise bii laa toog keroog. bi may bi may gis tàggeeg oustaz ba bi toog naa une heure de temps yoo xam ne mënumaa mënumaa jóg ci fauteuil bi. salaamaaleykum ndeysaan ci ci. décennie bi ñu génn wala ñaari décennie yi ñu génn yaakaar naa. Hmm. ñeenti génn àdduna ñoo ma ci marqué marqué boo xam ne tuur naa ci ay ronxañ yu ma yu ma yu yu tooyal sama sama yére yëpp. mooy hmm. génn àdduna Imam Hassan ak euh, bu oustaz Barham Diop ak benn bu amoon deux mille dix neuf benn accident bu amoon. ci cinq hmm. janvier deux mille dix neuf. ak euh, génn àdduna oustaz ba moom mooy ñeenti. accident bi amoon 2019 mom yaaka na ñi xam-xam nañ lo lo ki yoon la en tout cas. <coughs> Oustaz Ba lan nga ñu mëna wax ci biographie fan la juddoo ak euh, de façon succincte lan mooy trajectoire ba dugg ci faydu ndax dafa juddu ci famille boo xamante ne famille Tidiane la famille talibé Baye la. Mm. wala dafa am jaar-jaar bu mon avant tasawuf comme ni ko ñeen nañu amee. Mm. waaw alhamdulilah ku question boobu comme waxoon nañ ne euh, question boo xam ne dañ siy taxaw lu yàgg yàgg euh, hmm. suñ mbokk mi Ibrahim Thiam Arraïs mi doon tudd sànq bind na benn biographie bu complète ci sëriñ bi boo xam ne da ko hmm. tàmbalee ci da ko tàmbalee ci ci euh, ci juddu ci njàng mi ci ci tarbiya bi ci ci xaji màkk mi document boobu nekk na document xam ne am ne bu nit mën a dellu la pour mën ci euh, xamee sëriñ bi bu baax a baax mu ngi hmm. tudd foofu sax benn benn waykat buy wax ci Oustaz Ahmed ibnu Mouhammad ibnu Omar Ba ndax loolu mooy turam hmm. complet waykat bi hmm. ñuy wax ne annaasu kan naasi inda annaasi xaatibatan wa laysa ahmadu inda annaasi kan naasi mu ne waykat bu bu xamu saas la nee na nit ñi daal ñun ñëpp a waaw bon suñ bëggee wax wax boo xamante ni dafay neex ñëpp dañuy naan nit ñi ñëpp a yem nit ñi ñëpp a yem waaye nag mu ne walaysa ahmad waaye nag mohamad ahmad ahmad ibnu mouhamad ibnu omar nag moom bu yeboo rek nga seppi ko ci biir nit ñi eh, xam ne moom bokkut ak ñoom muhammadun basharun laakal bashar bal yaquti bayna al kal yaaquut si bayna xaca waaw ah, nit ñi ñëpp a buñ ko waxee dañ rafetal rek waaye nit ñi daanaka ñoom ñëpp yemuñ moom nag mu ngi juddoo dëkk boo xam ne mooy mooy Samba Sakho Samba Sakho mu ngi nekk ci euh, Passy département Passy région de de Kaolack euh, nekk ci euh, département wu Fatick région de Kaolack foofu la juddoo hmm. mu juddu hmm. Muharram la juddu bu dee weeru nga kii ngay wax mo la juddu quinze mille trois cent quatre vingt onze loolu dafay hmm. tombeek dafay tolloog huit mars mille neuf cent soixante onze huit mars mille hmm. neuf cent euh, soixante onze nag oustaz moom euh, Samba Sakho boobu mu wax na ci ay wax yoo xamante ne daanaka ñi xam way xam yi dañoo ne euh, boo koy taarixal mën naa am nga delloo way yooyu ci juddoom gi waaye nekk way bi mu ngi juddu mu ngi jundu mu jëntelam mooy euh, way boobu mu doon way ne yaa yaa samba saafo zafirti kanzan taalama mannat bihi l afraadu fi l azmani xustistihi law taalamina xaqiqatan man ahmadu ibnu muhammadin bi maanin muy way ci wayam woobu di wax ne yow samba saako zafirti euh, gañe nga nga maanaam maanaam dafa mel ni dafa amoon benn compétition parce que baat bi loolu lay euh, verbe bi loolu lay gën a euh, yenn comme ma dafa amoon benn compétition boo xamante ne dañ doon xëccoo dara mu ne yow Samba Sakho nag yow gañe nga bi nga amee kanzan trésor boo xamante ne taalama mën na bihi afraadu benn catégorie ci wee way walu yàlla yi afraad yi daanañ ko daanañu mébét di ko am ci jamono bu ne ah jamono bu ne am na benn wali yàlla boo xamante ne place yi bëri bi doon nañ doon nañ mébét am ko ngir denc ko ci seen biir mu ne yow Samba Sakho nag yàlla may na la nga denc kanzu boobu noonu kanzu xam nga buñ ko waxee ci ci suufiyanke yi lu foor lay doon kanziyatu mm-hmm. maqaama kanziyatu mu ne xussistihi yàlla la ko jagleel mm-hmm. waaye nag mm-hmm. law taalamiina xaqiqatan boo xamoon dëgg-dëgg maanaam boo xamoon dëgg-dëgg ki nga denc boo xamoon dëgg-dëgg kan mooy man ahmadu ibnu muhammadin soo xamoon dëgg-dëgg kan mooy ahmad ibnu muhammadin bi maanin ci maana maanaam pas ci xissiyim rek nii nii mais ci réalité spirituelle am boo xamoon boo xamoon kan mooy kan mooy ahmad ibnu muhammadin da nga da nga xam ne denc nga loo xam ne dana jafe dana jafe jamono mu mayewaat ko euh, léegi nag moom oustaz ci nekk ndawam googu noonu màgg gi muy màgg am na ay jotaay yoo xam ne xew na ba bàyyam sax wax na ne mës naa gis benn bis Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu Cheikh Ibrahim di ko wax ne ko eh, ibshir bi kulli xayrin wa alam bi anna allah ataaka kulla ma tamannaytahu fi dunia wal axirati bi itaa'ihi iyaaka hadal mawludi mu ngi wax ne bàyyam nee na bi ma bu saasamee ñett wala ñeenti at ci la dajeeg gis Cheikh Ibrahim Niass ci gént mu ne ko na nga bég yiw am na nga kontaan kontaan kontaan te mën a rek na ko kontaan te nga xam ne yàlla jox na la lépp li nga doon mébét yow ndax bàyyam góor yàlla bu mag la woon bu am xam-xam bu mën a jaamu yàlla mu ne ko Cheikh Ibrahim Niass ne ko na nga bég ndax yàlla may na la lépp li nga doon mébét ci àdduna ak ci àllaaxira ci jox gim la jox doom ji nga xam ne mooy mooy Ahmed ibnu ibnu Muhammad dégg nga léegi nag moom ci boppam ndegam ndegam dencal na kan bu googu ndegam am na ay bicaaraat yoo xam ne ñëw na rek moom ci boppam li ñuy wax ci xaalam ne man yaarifu ibna muhammadin fi xaalihi yaarifu fatan fi llahi laa yataraddadu wa huwa alwaliyu xawa alwilayata fi siba azwaquhu fi llahi dawman tusbadu dégg nga nee na nee na boo xamee ahmad ibnu muhammadin ci bicaaraat yi feeñ nii rek dèjà te jëmagul fan مي ودون وقت بين ويوم سنان اي دون نظر قلوبكم الى هذا الطفل كاني كاني ارى فيه الخلاف تنجلي قال ابن داو بي نين دي غيس ني من دلوات لين سين بوت نين خولات كو بو باخ من دا فا ملني دا ما غيس مي سر الخلاف مي مي ونديك سي بير موم مي لي نك سي واي نينا من يعرف لي استاذ موكو واخ سي بوبام واي جورم بو غور لي nettali mooy gént gi nga xamante ne gént na ko bi mu ko géntee ba pare dafa ci la ci la dafa dafa taawil ne moom ci la xam ne ci la xam ne doom ji mu doom ji mu jur nii dana nekk mbir maanaam ci gént gi mu gént Cheikh Ibrahim Niass ci la xamee ne doomam ji dana dana nekk mbir léegi nag oustaz ba mu demee ba gimmi ba màgg ci la wax ne ku xam sama xaal ak la jot a xew ci sama ba ma nekkee xale da xam ne da xam lu tax suma mos gi ci yàlla di di di di di renouveler wu chaque jour mel ni vague géej yuy dem di ñëw dégg nga parce que loolu la way di tekki man yaarif ibna muhammadin fi xaalihi ku xam e, doomu muhammad te mooy baayam ci xaal bi muy dund ci yàlla yaarifu fatan fi llahi laa yataraddadu da nga xam fata boo xamante ne futuwatu buñ ko waxee moom sax am na benn way bu muy wax ne fa fa Euh, fata ñi ko am ñi yegg ci futuwatu kamaliyatu googu noonu nga xam ne moom la futuwatu di laaj nee na ñi ci yegg matul ñeent tu na leen ci benn waayam damay bañ jotaay bi yaatu yaatu waaye nee na ku xam ibnu muhammadin da nga xam ndaw loo xamante ne ba mu jógee di dox ci yàlla ba ba muy génn àdduna mësta dengi mësta dengi dengi mooy li ngay wax mosoo gis mu changé mosoo gis mu soppi doxalin toujours même nit ki ngay gis am na sax moom sax daf ko théoriser nee na boo gisee nit di soppeeku ci dox bi muy dox di jëm ci yàlla rek xamal ne ko ci ñi sargan ci yàlla la bokk mu ne wal wal waliyu mooy waliyu bi nga xamante ne mooy al waliyu moom mooy waliyu bi nga xamante ne waliyu bi nga xamante ne xawal wilaayata làq na wilaayatu waxtu fi siba ci bu nekkee xale la nekk waliyu waaw ah, Oustaz ah, suñu xalifa bi eh, yal na yàlla guddal fanam eh, Thierno Ibrahim nee na Oustaz daal moom wóor na ko ne lii fi xale yi di jaar oustaz jaarul foofu mu wax na loolu nee na na ko ne oustaz fi xale yi di jaar jaaru ko mu ne nag moom moo laax wilaayatu bi mu nekkee xale azwaquhu fillahi dawman usbadu mos gim mos si yàlla nag jamono bu ne dafay dafay duusu comme ni nga xam ne noonu la vague di demee ji dellu si donc boo loolu pour gaaw tuuti rek daa fekk ne baayam mooy Muhammad ibnu Omar baayam Muhammad la tudd Mhm. Eh, bayi baayam tudd Omar ndeyam mhm. ndeyam ji jur ndeyam ji jur baayam mu ngi tudd Aïcha mhm. mu ngi tudd Ahmad baayam mu ngi tudd Muhammad bay baayam mu ngi tudd Omar nday baayam tudd tudd Aïcha dégg nga léegi oustaz moom wax na benn wax ci baayam nee na moom mu ngi sant yàlla bi nga xamante ne baayam moo nekk nee na mu sant yàlla ci bi li bi nga xamante ne bàyyam a nekk bàyyam a nekk bàyyam maam rëccuwul li mu nekk bàyyam buñ ko yóbbuwaatoon ci azal tamit muy tànn même bàyyi ji lay tànnaat comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ci ndeyam ndeyam mooy Fatima bintu Aïcha moom tamit bala sant dégg nga aljadd euh, tamit jaddam fii tamit da nga gis ne maamam bu jigéen ak maam maamam bu jigéen ci côté ndeyam ak maamam bu mm-hmm. jigéen ci côté bàyyam ñoo bokk tur Aïchatu hmm? Aysatu lañ tudd maamam bu maamam bu jigéen ci côté ndey ak maamam bu jigéen ci côté baay ñoo bokk tur moom mm. moom moom waxtaas wax ne wallahi law rajaana ila al azali fa kulluna bi ixtiyaari al walidayn li mm. marratin oxra laxtartuhuma saaniyatan li kawnihima li kawniha min xiirati xalqillahi taala nee na suba yàlla delloo woon azal ku nekk ñu ne la tànnal ay wayjur mu ne danaa beneen yoon ndax nekk gi mu nekk ci ñi nga xamante ne ñoo gën ci mbindaafoon a dégg nga am na ay mag ak ay rakk lii yëpp maa ngi koy fàttaliwaat liggéey bu rëy la boo xam ne Ibrahim Thiam euh, Raïs moo ko def euh, pour mokkal gi nga xam ne moom la mokkal alquran mu ngi ko mokkal atum mille neuf cent quatre-vingt-deux li lay wan ne li lay wan euh, nañ ko màng gu rëy mooy bala muy dem ci benn sëriñ di jàngi mokkal na ñaari ñaari xisib yu njëkk yi ci baayam ba pare ki la mottalil alxuraanam nag mooy Cerno Cerno Ibrahim Cerno Ibrahim Diallo mu mokkal alxuraan ci tu Warsh an naafe di ko di ko tajwid mën koo bind ba pare mën koo calligraphier Oustaz bokk na ci ay particularités am mooy calligraphe bu la bindam dafa rafet dégg euh, kon Cerno Ibrahim Diallo la moo moo mokkal moo ko moo ko mokkalal alquran boo yëgsee ci dirasaatam yi nga xam ne moom la def jàng jàngam oustaz li xam-xam bi di rëy rëy rey rëy bëriwul ay sëriñ nekk koo xam ne maanaam dafa jàng lu bëree bëri déedéet ñetti sëriñ daal lañ ko xamal ñetti sëriñ lañ ko xamal ñoo xam ne vraiment mën nañu wax ne jàng na ci ñoom te jàng gi sax euh, demee noonu ndax Cerno Abdoulaye Dia la gën a yàgg ci moom te mu ngi fa def at ak fukki weer un an mois la mën nañu wax ne daal euh, li ñuy jàng ci majalis yëpp mu ngi ko jàngee ci baayam dégg nga ñuy jàng ci majalis yëpp mu ko jàngee ci baayam dem na nag mille neuf cent quatre-vingt-huit mu dem tukki bi mu tukkee euh, di dem ci Cerno Abdullahi ja jaar na ci Cerno Njaay Dukke Cerno Njaay Dukke xam nañ ko euh, Ndar doon fa xaar benn nijaayam bu tudd Mamadou Diawo ngir mu mottalil ko paasam ngir mu dem Mauritanie foofu toog na fa ci daara ji foofu euh, jàng fa waaye jàngale te lim fa ëpp lim fa def sax mooy jàngale jàngale la fa gën a def après euh, ñibbisewaat na Sénégal parce que période boobu boo xoolee di gis ne ci la ci la événement Mauritanie Sénégal am mu ñibbisi bi ñu ñibbisee euh, mille neuf cent quatre vingt ci la ci la delluwaat ci ci Cerno Cerno Abdoulahi Dia jël na tuuti jël na tuuti ci boroom xam bu ñuy woowee Thierno Ali Thiam boo xam ne moo nekk doon wër soo bi nga xam ne jëlee na ci moom aruud ilmul aruud jëlee na ci Thierno euh, Ali Thiam jëlee na tamit ci Thierno Hamdu Rabbi moom tamit sëriñ mun xamoon la bu weesoo ñii amul keneen koo xam ne Oustaz dal na ci moom jàng te gis nga xam-xam bi li muy rëy rëy rëy rëy rëy téere yi muy wax ne ja muy jàngale gën ko mokkal jàngu ko minal alif ilal yaa téere yi nga xam moom la gën a mokkal di ko jàngale amul benn buñ ci jàng minal alif ilal yaa mën naa ci jël maqamatul xariri nga xam ne ci Cerno Abdoulaye Dia la ko jële ak alfiyati ibnu malikin alfiyati ibnu malikin moom déggu mën a jàng na ko ci kenn waaye bokk na ci téere yi mu gën a mokkal te téere yooyu moom la borom da ñoñ daara yi gën a ragal fan la jëlee tariqa ci Cerno Cerno Xasan Dem 1988 la jël la jël tariqa ci Cerno Xasan Dem Cerno Xasan Dem xam nañ ko euh, mooy doon duggal xalwa Cheikh Ibrahim Niass mooy ki nga sëriñ bi nga xamante ne def daf ko kashfu ci gént mu mu mu gisee ak moom te tarbiya ko defee ci loxo Cerno Abdullahi Dia ñëpp xam nañ ne oustaz sëriñ bi mu gën a bëgg ki mu gën a fonk ki mu gën a respecté ci àdduna mooy Cerno Abdullahi Dia ba sax gaa yi xam ne nañ Cerno Abdullahi Dia dafa mel ni moo moo moo moo moo yee li doon nelaw ci oustaz yëpp moo yee li doon nelaw ci oustaz yëpp ci ci ci moom la la oustaz nag révélé woo xam nga un an dix mois la fa def munoo wax ne moo ko jox yëpp waaye moo ko moo moo ko yee li newoon ci moom yëpp lenn lu ñu mën a wax fii ci xissa ci ci ci anecdote bu ñu mën a jàpp mooy ne bi ñu demee di jël euh, wirdu ci Cerno Abdullah ci Cerno Xasan Dem Cerno Xasan Dem ku gis rek woowee ko Cerno xam nga Cerno ci pulaar mm. buñ ko waxee moom mooy moom mooy sëriñ mm-hmm. nee na rek baayam mooy moo moo nettali euh, li Ibrahima Thiam euh, riwaaye mu ne baayam dafa ne bis boobu laa xam ne Amadou mi dana nekk sëriñ Amadou lañ ko daan wooyee bu mu xale waaye ñu nu Saas Ba Ahmed Ba euh, way na way na way ay wayu yéeme am na benn way boo xamante ne mu ngi ciy wax ne jëllat mawaahibuhu raaqat xilaaf xalaaiquhu yaa fawza man zaara abdullahi wa atamada nee na jëllat mawaahibuhu ay mayam ak ak tabeem feeñ na ci àdduna ba ñëpp gis ko raaqat na xalaaiquhu ay ay jikkoom ay jikkoom yaa fawza man zaara abdullahi wa atamada akam yéemu texeg waa ji nga xamante ne dem na ziyaare ji Cheikh Abdoulahi Dia ba jàpp ci moom ah, dañuy tënk rek moo tax ñuy ñuy gaawantu noonu mm. eh, da nga fekk ijaazaat yi nga xam ne am na ko eh, ñaar ñaar mooy boo xam ne eh, papa Cheikh moo ko jox ak boo xamante ne Cheikh Abdoulahi Dia mi ko yar moo ko jox ñaar yëpp day ijaaza itlaq papa Cheikh bëgg na oustaz bëgg goo xamante ne daf ko seedeel seede bu yéeme dafa ne qad shahidtu laka sidqa wal mahabba maa ngi lay seedal ne yow yow mii ku dëggu nga te ku am mbëggeel nga xam nga seede bi boo ko seedee da ngay foog ne lu ndaw la ngay seet da ngay foog ne lu ndaw la waaye bu ñu duggee ci deuxième partie bi ci ngay xam ne ndeke oustaz li ñuy wax ci moom yëpp xam-xam bi nangam nangam mooy partie superficielle bi li nit ñi di gis waaye li ko may mu yegg fi mu yegg yëpp mooy ñaari mbir yi maanaam mbëggeel gi ak dëggu gi dëggu ci mbëggeel gi moo tax li mu am ci àdduna yëpp moo am wala gis nga seede wàllu yàlla du seede bu ndaw papa Cheikh li mu ko seedeel ni ñi seede ci ginnaaw papa Cheikh yëpp waxuñu lu ëpp so lu ëpp lu ëpp ne kii ku dëggu la ci yàlla te ko am te ko am mbëggeel la da nga gis ne bu ñuy bu ñuy xool oustaz nan lay yaree taalibe yi da nga fekk ne euh, ixlaas sidqu ak mahabbatu mooy moom mooy mbir mi nga xamante ne moom jàpp ne ne mënta ñàkk ci yoon bu bi way Papa Cheikh di ko wax ne xaqan nazartu ilayka nazrata aqili mutaamilin mustaxbirin mustafhimi wa sabartu hmm. kulla sabri xaalaka fi lwara والعلم والخلق الجميل الأكرم فأراني المنان أنك في الورى رمز الأولى والبدر بين الأنجم mu ne Papa Cheikh maa ngi lay xool xoolu koo xam ne ku am xel la ku am xel ku intelligent ku pat ku ku attentif di xool e, di xool bu baax di réfléchir di seetantal di di am lu muy lu muy war a jël pour tànnaloo ko pour di di tànn tànn di tànnalu ci lim lay xool maanaam xool bi mu lay xool pour xool ndax mën na laa jox place bi la jox wala déet mu ne bi ma defee loolu ba pare e, xool sa jikko ji xool sa xam-xam bi ma gis ne yàlla moo ma wan yàlla moo ma woon gis nga ni muy waxee ci ay waaye Moussa tey wax yéeme lay nay waxee moom ni muy waaye ni muy waaye nee mm. ma woon bi ma lay xool noonu ah def naa effort personnel pour xool waaye gis naa ne ndekete yàlla rek moo ma doy ci man ma wax dëgg-dëgg yaay kan mu ne mën naanu yàlla mi mën naanu moo ma won ne yow ci biir nit ñi mindaafoon yi yaay yaay junj lépp lu kawe maanaam say jikko kawe na ba lu ñu lu ñu war a seet ci kawe rek buñ demee ci yow dañ fekk ne yow mel nga melokaan yow yaay weer wi nga xamantene ya feñ ba ba fangara ci biir bidéew yi loolu la wax euh, papa cheikh mi nga xamantene mo nekkon khalifa xalifa bëggoon ko lool lool tegon ko tegon ko place bo xamantene danaka danaka daanaka yalla mayul feex man nga ko man nga ko ci nga ko ci nga ngaa mébéta am limu am benen bi ijaza bi moy ijaza bu naturel bi nga xamantene serignam sëriñam ko yar ci suuf ci yoonu tasawuf moo ko ko jox te mooy Cerno Abdullahi Dia boobu 1993 la ijaaza bi ko papa Cheikh jox boobu 2010 la bi ko Cerno Abdullahi Dia jox boobu cent 1900 1993 la Ibrahima Thiam andi na benn lettre boo xamante ne ustaaz mu ngi ko ci leeralal euh, euh, mbiri ijaazam boobu nga xam ne euh, moom la jot ci papa Cheikh ak bi nga xamante ne moom la jot ci ci ci Cerno Abdoulaye Dia aji na màkk aji màkk bi xaw ma nag da nga bëgg ñu taxaw tuuti wala ma ramasser rek biographie bi waaw waaw aji na màkk mu ngi aji màkk deux mille neuf mu ngi aji nag boobu Mansour bu sëriñ sëriñ Mamoun Niass bu Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhum moo def yitte ngir mu dem aji màkk waaye fekk Eh, mébétoon na ne dana dana yóbbu dana yóbbu oustaz eh, Makka eh, moom ak Mansour nag seen relation dem na ba biire ba nga xamante ne Mansour dégg na dénk na ko doomam dénk na ko doomam Mouhamadul Mamoun ngir oustaz jàngal ko waaye tamit oustaz tuddee na Mansour doom Mouhamadul Mansour ba nga xam ne daanaka doomi oustaz yi moom moom moo moo moo topp ci yu gën a mag ngi way Mansour sax di wax ne Mansouru laa zilta bayna annaasi mansuura wa madxukum zillun fi l aadaani mashhuura miimul makaarimi nuunul nasri saa saadu sifa saadun safa waawul wafa raau rushdin dammu mansuura ah dégg nga mu ngi wax Mansour jël jël ah, li ci français maanaam jël bi bu mu jox mu mu mandargal ak benn benn jikko boo xamante ne Mansour am na ko euh, miim nee na miim makaarim jikko yu kawe yi nuunu nasri nuunu ndimbal saadu safa saadu moom ku sell ci yàlla waaw wafa mën a raa u rushdin ak raa u rushdin maanaam euh, raa u njub u jub mu ne lii mooy li nga xamante ne Mansour turam loolu lay loolu lay loolu lay loolu lay méngool kon xam naa mën nañ doyloo loolu rek ci li nga xam ne mooy dimension bio biographie bi euh, liñ ci mën a dolli mooy li nga xamante ne ay junju isharaat la yoo xamante ne euh, aarifu na yi xëj na danañ ko soxla mooy oustaz weer wi ñu juddu ci weer woowu la génn àdduna bis bi mu juddu ci bis boobu la génn àdduna te ci weeru muharram la dégg nag ay ay ay junj la yoo xamante ne yu junj junj yu am solo la weeru muharram boobu boobu firi na ko ci baatin ci benn xasida boo xamante ne amaana ci deuxième partie bi danañ ci danañ ci laal tuuti ma ma ma ma delloo la kàddu gi après ñu ñu ci léeg-léeg incha allah. Euh, hmm. Seydi kàddu gi sa kàddu la jotaay bi sa jotaay la. mooy wax daanaka duñu bëgg bëgg nga daaneel tellement que. Hmm. dañ ci jëlee xam-xam ak yokkute bu bëree bëri. Euh, jàngale oustaz maanaam ci daara naka la hmm. ko tëralee woon ndax dafa amoon euh, nizam maanaam organisation boo xam ne ñii dañuy xëy jàngale yi ñii dañuy xëy jàngale ak yan waxtu la daan jàngale man loolu généralement curiosité la ci man. oustaz borom xam-xam yu bëri am seen tëralin jàngale ak seen emploi du temps yi naka lañ ko tëralee woon. oustaz daal. am nga hmm. loo mën a wax ci moom. Hmm. mooy mooy moom moom xaal bi mooy doxal mbiram yëpp xaal bi mooy doxal mbiram yëpp koo xam ne dafay dafa fonk lool di organiser lii doxee lii dale doxee nii non non moom daal xam naa ne am na ay heure yu muy génn di jàngale heure boobu bu jotee dana génn daara ji nag ñi fa nekk nag ku nekk téere boo indi hmm. dana ko jàngale téere boo indi dana ko jàngale waaye seetlu naa benn mbir si moom ñaari mbir ñaar maanaam matière bi nga xamante ne moom su koy jàngale hmm. su koy jàngale da nga gis ne kii vraiment mu ngi dans son élément mooy hmm. grammaire te wax na hmm. ci sax ci ay waxam ne moom alfiyatu ibnu malikin su gisee ab arab di ko jàngale arab bi daf koy def ay rey ndax arab bi benn méthode lay utiliser méthode bu linéaire lay utiliser pour jàngale alfiyatu ibnu malikin te moom bu koy jàngale nee na shawahid yëpp dañuy taxaw fu ko neex lay jëlee loolu xam nga lu yéeme te Alfiyatu ibnu Malik ñëpp xam nañ koy jàng ci troisième cycle grammaire arabe mais moom daf ko naanoon te bu koy doon jàngale def ci daf ci daf ciy def nu mu ko neex jàngal jàngal man déglu naa ko mu jàngale ko ci arab déglu naa ko mu jàngale ko ci wolof waaye nim ci meloon yéeme na matière boobu moom grammaire arab moom su koy jàngale da ngay gis ne ah. kii lii li muy def ni lu mu mu bëgg la daal pour ah. am na beneen yeneen ñaari mbir manam mutanabbi mm. tamit su koy jàngale mm. suy jàngale mutanabbi nga gis fekke ko muy jàngale littérature arabe ba téye mutanabbi mën na fa nekk guddi ba guddi ba guddiwaat jot du doyal te it mutanabbi moom suy jàngale mutanabbi usa buy jàngale mutanabbi day mel ni moom moo nekkoon mutanabbi di bind way yi wax na sax benn wax boo xam ne bu yéeme la nee na moom moo gën a comprendre way mutanabbi yi mutanabbi ci boppam ñun toog nañ jotaay man toog nañ maag moom Ibrahima Thiam benn jotaay boo xam ne dafay génne par bayit di génnee bayit bi lu ngeen ci dégg ku ne wax li nga dégg mu ne déedéet du loolu te bu waxee li mu wax da ngay d'accord ci loolu ak Ibnul Farid hmm. Ibnul Farid su koy jàngale tamit da ngay gis ne dafay dafay sawarte te dafay dund li muy muy li nga xam ne moom lay jàngale bu weesoo loolu nag yëpp lay jàngale te buy jàngale diggante euh, guddi gi yëpp lay jàngale guddi bi yëpp lay jàngale parce que daara ji moom mooy ki nga xamante ne mooy jàngale matière yëpp amul amul lu mu délégué lépp moo koy jàngal loolu mooy li euh, nga xam ne noonu la tërale woon euh, njàngale gis naa ay xale yoo xam ne ci diiru ñaari at hmm. la leen laxasal grammaire arabe te tey jii gisuma ñu leen raw ci daara ji bugguma tudd pour catu leen yàlla na yàlla sàmm leen aar leen may leen may leen gudd ak amin amin yaa rabbi ndax am na ay ndax am na ay téere yu mu bind yoo xamante ne mool nañ ko ci dundam wala yu mu fi bàyyi loo xamante ne liggéey mu ngi fi pour dajale loolu. oustaz comme comme comme comme Ibrahima Mahmoud Diop ñoo nduroo ci lépp ñoo nduroo ci hmm. lépp bind na ay téere bind na ay téere bind na ay na ay way bind na lu bëree bëri waaye lim bind yëpp amul dara luñ ci mool yàlla def rek. mbokk mu tudd sànq Ibrahima Cham Rais def na ci item ba dajale ay ay abiyaat yu bëree bëri yoo xamante ni daf ko def ci suluuk yi mu tënk ci ay xam-xam ak ay ay eh, ay eh, ay cax yu joxe ak ay xikam yu mu joxe mu jël ko tuddee ko mm. xikamul ahmadiya mm. loolu moom nekk na lu pare loo xamante ne projet la boo xam ne ñu ngi ciy liggéey yalla yalla dimbali ñu ñu génne ko way bu wéso lool moom oustaz moom jangalem dëgg-dëgg mu ngi propager wu ci conférence yi ak dars yi mu def gaay dum ko enregistrer mais ko oustaz baram Diop ñoo yam xal ci ci ci côté bob hmm. hmm. la mort mystique paroxysme de la quête qu'est-ce que ça vous dit. wa li li wa ci lool moy lool oustaz. les morts ne sont pas ne sont pas morts. waaw li nga li si loolu xam nga mooy loolu sax daanaka dèjà moom mooy moom mooy objet bu waxtaan wi tey moom mooy ne oustaz génn na àdduna waaye daf ñoo jàngal dee daf ñoo jàngal dee ci jàngalin boo xamante ne dafa mat sëk waaw ko jàngale théoriquement jàngale ko dans la pratique xam nga sufiyanke yi seen ket bi li ci gën a rëy moom mooy moom mooy yi li ñuy ye am na am na waykat am na waxkat yu bind na sax euh, ñeneen ñi dañuy daw dee waaye sufiyanke yi ñoom dañ koy affronté parce que dañ ci dañ ci am dañ ci am ay ay euh, ay euh, ay yëg-yëg ak ay ak ay étape initiatique yu ñu dox ci biir dee yoo xamante ne ñoom rek ñooy affronté dee di ko di ci waxe comme niñ ci waxee comme ni nga déggee oustaz di waxee ne al mawtu raaxatu raaxatun li kulli xayin aasha ma allahi kulli shay'in oustaz nee na al mawtu raaxatun li kulli xayin dee mi ngay gis ni noflaay la pour képp kuy dund waaye kuy dund koo xamante ne aasha ma allahi bi kulli sa'yin koo xamante ne dund na ànd ak yàlla am na maiyatullahi bi kulli sa'yin ci bépp paa boo xamante ne jéggi na ko ah bépp jéggi boo xam ne dox na ko si àdduna rek mu ngi doon ànd ak yàlla kooku noonu moom su deewee doon neflaay la ci moom dañuy gis nag nag آه، ابن عربي دفع نجاة الموت بما فيه فأخلى البلد وفرق بين الروح والجسد ورد كل شيء إلى أصله فألحق الجسم مع ترابه بترابه وأرج بالروح ابن عربي لنا ديدال دال دفع دفع جك جك جك نتل عندي عندي لم أنا عليه لم دف لا ويتل دك بفاخل البلد لا ويتل ندك بي وفرق بين الروح والجسد دي سبارنا ديجنتي الروح ak yaram wa da kullu shay'in ila aslihi lu nekk nag ci doomu adama bi jël na ko delloo na ko ci cosaanam lu mu def ak jëmm ji fa alxaqa jisma ma turaabihi bi turaabihi jël na bak jël na yaram wi boole ko suufam si delloo ko ci suufam wa arra wa arraja bi ruuxi mu jël ruux nag yéegal ko mu mu yéeg dellu fa nga xamante ne fa la dëkkoon gis nga définition bii nga xam ne moom la moom la Ibn Arabi joxe ci dee dangay gis ne njàngale oustaz yëpp da ko da ko dëxëñ ci biir lii ndax boo déggee wax ji da ngay gis ne kon ndegete ndegete comprendre de da laaj nga comprendre ale mbëggeel moo lay wan moo lay wan moo lay wan lu tax sufiyanke yi bu dee amee ñu sigéré benn sigéré boo xamante ne dañ koy aj ci ñu ñu ñu ñu daa ñu sigéré wala ñu sigare goo xam ne dafay ànd ak tristesse jooy sëngéen goo xam ne dañ koy acc ci bi yonent sallallahu alayhi wa sallam ibrahim génne àdduna yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne al qalbu yaxzanu wal aynu tadmau wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna li firaqika ya ibrahima la muxzinun bët yaa ngi jooy xol bi metti na te waaye doo ñu dégg ñu wax loo xamante ne yàlla gërëmu ko waaye Ibrahima dëgg dëgg séparé gi ñuy séparé wu ak yow nekk na loo xam ne lu ñu metti la léegi nag pour delluwaat ci définition bi Ibn Arabi wax na ci biir définition bi ne euh, dee bu ñëwee dafay séparé dafay séparé ruux ak yaram mm-hmm. xam nga ci benn xasidaam oustaz dafa wax benn wax boo am solo boo xam ne sax junj la bokk na ci li muy jàngale moom junj gi nee na ehm, eh, alxubbu xarfaani alxubbu xarfaani xaaun wa baaun tazuubu inda maaniha al axibaau nee na alxubbu xubbu mbëggeel xarfaani ñaari xaraf la ñu ne ko ban ban mu ne xaa ak baa mu ne tazuubu ma ngay ma ngay ma ngay buuru jëm inda maaniha fa muy moom xubbu googu al axibaawu ñi nga xamante ne dañoo bëgg xam nga lan lay junj foofu xarfu xaa ak baa xam nga lan la xaa mm-hmm. moom mooy mujjantelu lettre ci boo bindee ruux mm-hmm. ba nga baa mooy première lettre sooy bind badan jismu badan ci arab moom jismu benn la mooy yaram léegi nag ñu ne mm-hmm. mbëggeel moom ki bëgg ki nekk ki bëgg ki bëgg mu ngi ci xaal boo xamante ne dafay nekk yenn saay ruuxam bila jasadin aw jasadam bila ruuxin dégg nga Mm-hmm. delloo ci li Ibn Arabi doon wax ne dee bu ñëwee dafay séparer dafay séparer yaram bi ak ruux bi moo tax ma ne la mbëggeel daa daa liyewu ak li nga xamante ne moom mooy moom mooy dee moo tax boo seetloo ni bàyyi di waxee ci ci yonent sallallahu alayhi wa ko bëggee moo lay junj ne yenn saa yi ki bëgg e, su dee ki mu bëgg nekkatu fi day nekk ci benn nostalgie boo xamante ne nostalgie bi day wër ci biir dox bi waaye dafay jékkiwaat ci biir dox bi dafay jékki-jékki wér jékki-jékki dekkiwaat ndax bu ajee mbëggeel gi ci ruux bi rek ñàkk gi fi ñàkk jëmb ji ñàkk nekk loolu du ko poser problème waaye yenn saa mu bugg mu bugg nag am benn contact physique te contact physique boobu du mën a nekk moom la bàyyi di expliquer ci waayam yi tanaada ak sa zikri asxaabu cheikhina wa dikru rasulillahi fi arfahil mahya fa tawran li wurraa وتورا لسادري ها وعاونة للحي أحسن به سعيا نهيم به تورا وتورا بسره وسر رسول الله تيا على تيا فتاها رسول الله مرسل ذاته نريد فلا سؤدا نروم ولا ريا لما تبقى عندي موي manam état boobu état de yenn saa نوستالجي دي دويلة نعم la nga gëlëm nga nga nga nangu ngëlmaane gi ngëlmaane gi neex la yenn saa yi nag ngëlmaane gi du la doy da ngay bëgg da ngay bëgg da bëgg am lu dëgër loo téye moo tax mbëggeel gi su ajoo ci loo xam ne nekku fi dafay metti moo tax bàyyi da ngay dégg muy wax ne fa tayyamani shawqan wa azza liqaa'uhu idil iishu laa tujdi wal aqdaamu dallati bàyyi loolu lay junj fii fa ta shawqan yam sallallahu alayhi wa sallam feebar na na man ndax mbëggeel idil euh, Euh, wa azza liqaahu waaye dajeeg moom jafe na ah, man sonn naa bëgg naa ko lool lool di ko fuglu waaye xam naa ne jafe na pour ma dajeeg moom mu ne lu tax ma dajeeg moom mu ne idil iishu laa tujdi wal aqdaamu dallati ndax gëléem yu dëgër yu am doole yi doyuñu pour nga mën a daw ba yegg fa mu nekk ndax fa mu nekk yaram du fa dem wal aqdaamu dallati te ndëggu yi nag rëcc nañ réer nañ أهيم به ثورا وثورا أراها قجتي ثم yaa ngi dégg fi waxee mu ne ahimu hmm. bihi tawran yenn saa yi muy ma ma ma gëlëm ci moom alasdu bi hmm. zikri may bànneexoo tudd gi ma koy tudd am souvenir hmm. rek doy na ma fa aslu ma ma daal di kontaan daal di kontaan parce que souvenir yaa ngi fi lépp a ngi fi ñu ngi fàttaliku oustaz ñu ngi toog di déglu ay waxam mu ngi mu dund si ñun dans nos souvenirs il est aussi présent que quand il était encore vivant donc doy nañu waaye nag wa tawran ara wa tawran lam arum xayra wuslati waaye yenn saay nag bàyyi neen yenn saay du ma du ma bëgg lu dul dem jokkoo ak moom mu ne wa tawran ara anna alxayaata mariratun moo tax mu ne yenn saay danaa gis ne dund gi dafa soof wa tawran ara aha buxyati summa wallati mu ne des fois ma gis ne moom mooy suma objectif bi mu bëgg a atteindre ba mu ne maa koy jot mu dem dëpp daal di ma gannaaw متكسلا وتذكار أتواري بشوق حبيبنا تكل قلالي وهو عين مذلتي هما في النهاية نرى نكنك دي وخ الصلاة على الغيوب وغيبها وآل وصحب والعيون محلتي آه على عين الغيوب وغيبها لو سبوك بقول في دان في فنار ويننا baynena wa taskaru atwari so bëggee fat so bëgg laajoon naa ko suñ doom bàjjani ne leen suñ ko firee ma 2016 ba léegi de euh, mënuñ koo firi mënuñ koo firi parce que il faut nga xam luy aynu xam luy xaybu xam luy aynul ayni xam luy xaybul xaybu pour mën a firi bayti bàyyi bayti bàyyi moom dégg arab sax doyu si hmm? dégg waaye fii nee na wa tazkaaru atwaar yi bi shawqi xabibina soo bëggee su ma fi bëggee toog di la melal naka laa mela ak euh, naka la sama yan palace la sama bëggeelu sama soppe bi ni ma ko bëggee yan palace la dëkk ci man mu ne loolu xalima munu koo def te boo xoolee nag ay nu ma dal ci loolu moom mooy dëgg-dëgg réer di ma réer ci moom moo tax mu ne moom mbëggeel jooy yi muy jooy ci mbëgg gi mu bëgg ki mu bëgg mu ne jooy yooyu noonu c'est une seen euh, c'est une mode c'est un mode d'expression de l'amour euh, qui est porté à un niveau supérieur bàyyi pour moom euh, jooy yi dafay participer ci cheminement spirituel bi jooy yi ngay jooy pour kii nga bëgg bàyyi neen dafay participer ci cheminement spirituel bi ah bakaytu fa afnaytu dumuwa famal buka siwa xaalatin lil qalbi min xarqati shawqi bàyyi nee na bakaytu maa ngi jooy jooy naa fa afnaytu dumuwa naa ba jeexal ay rongoñ buka jooy yu du dara siwa xaalatin lu dul ab xaal boo xamante ne xol baa ngi koy dund min xarqati shawqi ci tàngaayu mbëggeel moo la mu ne ida nadaru naxwi ukaftu fi admoi وإن غفلوا أرسلت دمعي مطلقا وقيد وإطلاق لدمعي كلاهما وذلك حال الحب حين تحرق دنج دولي يب مانكوي مانكوي اندي بور واخني ريك غيسنا سفيان كي مانام ان فيت سي لا مور كي كي دون ان كادر ديكسبريسيون ا لور امور ايديليك سيت امور سيت امور نينكو وي بلاتونيك بيغا du am tey terrain boo xamante ne foofu la expliqué moo exprimé woo lu dul dans les idées ñoom ñu koy mën a expliqué woo ci bu leen bëgg liñ bëgg bu leen fàddoo wala bàyyi na suñ ma xoolee rek ma ma nëbb sama rongo ñi waaye suñ ma suñ ma suñ sarganee xooluñ ma rek ma daal di tàllal suma rongo ñi mu ne nag eh, ma tàllal wala ma tënk sama rongo ñi xamal ne moo yem ci man mais nee na mooy xaalu dëgg-dëgg ki nga xamante ne moom moo bëgg moom moo bëgg bàyyi bàyyi nga wax ci benn wayam ne wa daaturu wa dam u yajri sababatan ala xiina laa yujibu kaa ul fata jadwa maa ngi koy tàggu moom yonent sallallahu alayhi wa sallam mu may fàttali biñ biñ dencee oustaz bane aca dem dem rek moo fi des nga jooy nag xam ne dootoo ko gisati jëmmi zaahir yi dootoo ko gisati mais euh, xëj na neneen di ko di nga ko jokkoo ak moom في ما بغي نيو تي لي ماي واخ ني ييب لا استطيع وداعه جرى الدمع مني جرى الدمع مني والفؤاد مجرح وان الذي رد الكليم باهله سيرجئني بالمنح منا وهو افرح في قصيدة بي دفنه وودعته والدمع يجري سبابة من كنت أقول درونغ جانغي ولا نغان يوندو جا واي على حين واي فيني ما في جويني fii instant bii nii may jooy nii laa tujdi buka alfata laa tujdi buka ulfata fi may jooy nii jooyi ndaw li du fi jariñ dara waaw doo doo jooy jooy du tere yàlla moom jël na ko moo tax dëgg la ne yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fi qabrihi bima niixa anhu néew bi danañ ko ba danañ ko mbugal si biir bàmmeelam waaye waxul ci li ñuy jooy ci moom de ci li ñuy dëjjaatu ci moom ñàkk nañ fu ñuy jëlee ci ku mel ni moom nangam nangam yooyu noonu dëgg la dëgg la soo ko defee dafay dafay tekki ne yaa ngi wane ñàkk gëm yàlla waaye xamal ne ku dee ku baax ku ne asamaan ak suuf ñu ngi koy jooy fi ma ci bëgg ñëw rek mooy fan la ñu ustaas yóbbu ci wan ñu lan mooy dee dëgg-dëgg moo tax lii nii yëpp damay bëgg liñ koy rek ne euh, dee gi ak mbëggeel gi ñoo ànd te dee gi sax dafay waral mbëggeel gi gën a yokk ci moom moo ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg oustaz waxumaay taalibe ñi ko bëgg ñëpp tey lañ koy gën a bëgg ndax tey la yàlla di wane dëgg-dëgg mbóot mi nga xamante ne moom la nekkee woon ndax eh, Ibn Arabi dafay wax ne dee gi dara lu dul libération bu libéré ruux gi nga xamante ne moo nekkoon di di mudabbirul jismi moo tax mu ne kenn warul wax de en réalité dañoo war a wax rek intiqaal toxu goo xamante ne toxu nañ ko waaye ci jooy yi ba tey da nga di wax ne fama bakat alayhim alsamaau wal ard wa ma kaanu munzarin ñoom de asamaan ak suuf jooy leen di kenn xaaru leen woon sax ah buñ fi toogoon nag buñ fi jógewul kiwul am na ñaari xadis yoo xam ne dafay wane lu am solo mooy lu tax asamaan lu ta yàlla di wax ci kii bi ne asamaan jooy leen mooy ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na amul benn jaam lu dul ne am na ñaari buntu ci asamaan baabun yaxruju minhu risquhu wa baabun yadxulu minhu amaluhu nee na buntu boo xamante ne xéewalam fa lay jógee di ci ak bunt boo xamante ne jëfe mi fa la ñuy jóge fa si moom la ñuy jóge du dugg mu ne su génnee àdduna nag ñaari bunt yooyu dañ koy xam ne ñàkk nañ dugguwaay ak génnuwaay ñu jooy ko yàlla ne fa ma bakkat alayhim sama wal ard lan moo tax yàlla wax ne suuf kenn du leen du leen jooy mooy ne julit bi bu génnee àdduna xadis yonent sallallahu alayhi sallam nee na ci suuf euh, maslaahu fa mu doon jullee dana ko jooy teg xam-xamam tamit dana dana ko jooy moo ne wa min as-samaa'i tamit masadu amalihi bu dem ci biir asamaan tamit palaasu palaasu teguwaayu palaasu teguwaayu teguwaayu teguwaayu euh, xam-xamam dana ko jooy ba tey nga gis ci lii nga xam ne sew-sew yi ñu ustaas di jàngal ci mbëggeel ci ci ci ak mbëggeel moom nga dégg bàyyi di la wax ne xam nga doomu aadama comme li ñu waxoon sànq yow sa mo moom day continuer du dund sa yaram dafay dem yow nag boo ñëwee fii nga am yaram bëgg jokkoo ak koo xamante ni ruux rek la dese il faut nga il faut nga rañaan moo tax nga dégg bàyyi di wax ne fi bi ruuxi aqtafi jisma ahmadin euh, fa tamma liqaa'un bayna dayni hunaaliki hunaaka talaasha ruuxu bil jismi faaniyan safaaliya waqti fiihi baada tahaaluki bàyyi ne na saraytu bi ruuxi maa ngi rañaane suma ruux aqtafi may jéem ma xëñtu gis ma ahmadin yaram yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bama deme ma ko fekk moom yontu sallallahu alayhi wasallam sallam mu ne foofu daje gi dafa mat sëkk diggante sama yaram man ak suma ak ruham mom hunaka talaasha ruuxu lil jismi faniyan safali waqti mu ne boobu nag suma waxtu seet na fiihi baada da ngay gis ne kon euh ki nga xamne mo moo mo bëgg jot ci maqama de dëgg-dëgg il faut mu il faut mu mu yemale dund ak il faut mu yemale dund nga xam ne bu deewee ci la dund te bu la dee oustaz ne woon ñu ne xalaaj dafa wax ne xalaaj dafa wax ne ngir sax mu libéré wu euh, bi libéré mu yéeg ci dee goo xamante ne deegu deegu koy libéré la dafa woo dee ci boppam mu ne xalaaj dafa wax ne nafsul muhibbi alal alami saabiratun la alla muskimaha yowman yudaawi ñaa nag bakkenu kii ki bëgg dafay nangoo dékku coono yi ngir ki ko feebarloo kookoo koy faj tamit nga nga nga gis ne nga gis ne dee googu kon dee gi benn préparation boo xamante ne eh, yaram bi dox ci yàlla dana ko préparé ngir yéeg ci maqaama boo xamante ne moom la moom la ustaas ji woowee ne maqaama bi nga xamante ne dem nga dem nga ba ba ba lépp ba sa lépp jeex na ci Euh, ci yàlla mi nga xamante ne moom mooy moom mooy kenn looloo taxoon ci benn waxam don na wax ne seetlul rek yow euh, yow mi nga xamante ne yaay jël xam-xam ndax en réalité boo deewee ci ngay boo deewee ci dee gi nga xamante ne moom la sufiyanke yi di junj si ngay jot véritable xam-xam bi moo tax oustaz wax la ci benn wayam ne la seetlul ne yow li nga woowee xam-xam yaa ngi koy jëlee ci ku mu koy jëlee ci ku bu koy jëlee ci ku dee ba yow nga mujj nekk ku dee mu ne nag xanaa doo seetlu ne dee ci boppam constitution la boo xamante ne dañ la ko tegal ngir te dund bi mu ne ku xam ku xam dëgg-dëgg dana jëli jéey ci ñi dee benn leçon boo xamante ne leçon muy bàyyi xel la di ko déglu ma zilta tasmau mayitan min mayitin an mayitin hatta sirta al mayita al mawtu dustu fa al mawtu dusturun lil xayaati fa dara yaaxuzu min al amwaati darsan sayyita ustaas nee na maa zilta mosoo dañ yow tasmawu di déggee mi mayitin ci mayitan ci ku mi mayitin mu jëlee ci ku dee an mayitin nga jëlewaat ci ku dee xataa sirta xataa tasiiral mayita nga mujjee ba nga mujjee nekk ci ñi mu tey dina fal mawtu dusturun lil xayaati dee moom benn constitution la benn règle la buñ teg lil xayaati ngir dund ku xam dëgg-dëgg li li dund li dee di li dee di wund yow da nga jëlee leçon ci ñi dee leçon boo xamante ne da koy déglu tout le temps moo tax euh, am na lu ko am na lu ko Seyd nuru wax ci xam-xam gi nga xamante ne moom la koy joxe maanaam ci lay ni muy dekkalee ñi nga xamante ne dañoo woon ndax ko xam yàlla moo dee ki xam yàlla ki xam yàlla mooy mooy dund ki xamul yàlla kookoo dee sa wax na ci oustaz wax na ci benn waxam ne yéen sallallahu alayhi wa sallam dafa ne xam nga xaw ma ndax xadis la yow fi pour mën koo kii ne yoon sallallahu alayhi wa sallam nee na dee leen balaa ngeen di dee ustaas nee na boo deewul balaa ngaa dee yow boobu da ngaa mëyit da ngaa nekk nit waaye soo deewee balaa ngaa dee nag maanaam dee nga fekk deewagoo boobu yow si nga dund dëgg-dëgg moo tax Seyd Nuur di ko wax ne ko kam min fatan jaahu xaawin fa sayyarahu naaran ala alamin ilman kaza adaba ma radda qattu محبا للألوم ولم يقم على بابه الأوصاد والحجب ما رام قط مقامات سوى فندا في الشيخ إذا غير حب الشيخ ما تلبا ما كان قط حبا للظهور محبا للظهور وإن أقامه الحق نبراسا فوا أجبا للنور موكو بالنور ماتيبي li وحي وحي وحي وحي yoo xamante ne wax yi yéeme na xale bu ndaw boo xamante ne xamut woon dara ñëw seet si la ñi ci lañ bokk ñu bëri ci lañ bok mu ne nga mujjee ko def nag mu nekk benn mandarga bu rëy mu mel ni eh, safara woo woo taal rek teg ko ci aw doj nga def ko ci mm-hmm. moom xam-xam waaye def ci moom teggin te nuur di ko wax ne ko maa raddaqatu muhibban lil ulumi oustaz ahmad ba mësta dàq nit koo xamante ne daa bugg xam-xam nga bugg xam-xam ñëw seet si ko mu ne la cab déedéet aw ma temps nangam na mu ne oustaz mësul def loolu waaye li ولم يقم على بابه الأوصاد والحجبة أستاذ موسول جل أي أي أي بك نيك تكلين تي بنت نيغم ولا نيو خامتاني أي أي أي أم دو سيكوريتي لن تكلين تي بنت نيغم بوك نيو ني داخل نلا ديدت من لول أمون تي بنت نيغ أستاذ كو بوغو دوغو رك داغي دوغو أمون بك نيك أمون غاردو دي كور ما رامقت مقامات مقامات سوى فندا من أستاذ متستاكو بن مقام لدول جيخ الشيخ تي cheikhu tijaani radiallah si cheikh sëriñ bi cheikh ibrahim Niass radiallahu anhu ida gayra xubbi cheikhi ma talaba ndax leneen lu dul bëgg sëriñ bi cheikh ibrahim Niass sàkkuwul lool ma kaana qattu muhibban li zuhuri nee na ustaaz mësta bëgg feeñ wa in aqaamahu lxaqu nibrasan donte yàlla def na ko mu taxaw nekk ab lamp mu ne fa waa ajaba lii nag moo jëre yéemu dégg nga moom sax ustaaz wax na ci benn waxam nee na inna tawaadua min xisaali an ara mutakabbiran illa ala mutaahili Nana musman mos man suufee woyof ci samay jiko la bok. doomu gis muk may reey reey lu di mbeur mbeur lu lu dul ci ko xamantene nak mom moom daa bëgg taxaw rek bëgg bëgg bëgg bëgg daanal nit ñi teg boppam mu ne eh, doomu musa gis may may ñew may ñew di di di mbeur mbeur ko nañ jàngee ci dee ndax de leçon la boo xamante ne ñi ñi dee ñoo ñi ñi ñi dee ñoo ñu koy jox daa mel ni wax jooju moom la beneen waykat waxoon nee na al mawtu dasrun darsun wa azrailu mulqiihi wal xalqu charxun wa zaatu sadai tarwiihi lawlaahu maa arafa almaxluqu xaaliqahu fa yaa li mislihi ustaazun nuaadiihi même maanaa bi la rek ah dégg nga qul yatawafaakum malakul mawtu alladi wukila bikum léegi nag gaañu su fiyankee ñoom dañoo wax ne dee ñetti ñeenti façon dee moo am te dee yëpp li may wax rek oustaz daf ñu ko jàngal ci nim tëralee darsam bi nga xamante ne moom la def si dee ak li nga xamante ne moom la bind ak sax moom ci dundam xam nga sufiyanke yi nee na ñeenti façon dee moo am dee bu njëkk bi mooy ñeme xiif ñeme xiif mooy mawtul abyad beneen bi mooy mawtul aswad mooy ixtimaalul aza nangoo dékku coono yi mawtul axmar mooy muxaalafatu nafs ak mawtul axdar moom mooy tarxu riqaau baaduha ala ala baadin ñeenti façon dee yëpp ñeenti façon dee yëpp ku xam oustaz mën ngaa wax ne dee na ko ba pare doo mën a dugg ci bu nekk di ko wax waaye ñemeen xiif nangu na dékku ngay doomi aadama man am na benn benn benn anecdote boo xam ne marqué na ma lool lool lool mooy ah. am na am na am na borom daraja gu mag a mag kilifa gu mag ci tariqa bi ak ci faydu bi boo xam ne oustaz daana dem ci ay jotaayam te du xaar sax invitation mën na am invitation bi dina ñëw après waaye moom du xaar sax invitation te bu ñëwee li gën a yéeme mooy du dem di toog ci ay fauteuil day dem buy dem dafay yóbbaale sajaadam bu ñëwee ci sajaada bi lay toog ngir ne jotaay bi jotaay Cheikh Ibrahim Niass la te jotaay Cheikh Ibrahim Niass kenn ëpp ko ci kenn ëpp ko ci daraja ak ak ak ak ak dayo wuute ak gi mu wuute ak bakkenam bokk na ci amul kenn ku muy diis soxlam wax nañ la ne mm-hmm. atiw ko sëriñam la atiw ko atiw xam nga yow Cheikh Baye mu gën a xam ne jële atiw ko sëriñam la ñëw na di ko laaj luy sa soxla mu ne ko amul benn soxla mm-hmm. amul benn soxla ko ci koo xam ne amul lu dul xaritu ay milliardaire ci woyof rek moom mooy loolu dafay wane ne moom dee na façon dee yëpp nga mawtul asgar beneen façon dee la ci sufiyanke yi te moom mooy moom mooy moom mooy nelaw moom la wax nelaw waaye nag mawtul akbar mooy bi oustaz def nga xamante dañuy wax ne al mawtu kullu naasi daaxiluhu kenn mënu see mucc mawtul maanawiya nag gii ci laa bëgg ñu taxaw ci ak ci naka la ko jëm أبنياتلت ليجل في مقام ونا موسى كي ابن عربي نانا موت المعنوية ممي سزاتو سزاتو زاتو يالا نيو تخويكو سي صفات صفات يالا نيو تخويكو يونت صلى الله عليه وسلم نلا موتو قبل أن تموتوا حديث بجد نيو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب في نك dañ jël suñu temps bu baax déglu oustaz lan lay wax ci ci façon yi ci ñaar wala ñetti xasida xaw ma na damay. Euh, Imaam waaw. maa ngi maa ngi jéggalu est-ce que duñ ko defal duñ ko def deuxième partie bi pour samedi. waaw waaw macha allah macha allah mën na nekk bu ko def déjà une heure une heure dix ñu def ko deuxième partie. waaw mën na nekk waaw si ça vous ñu ñu gën a ñu gën ci yaatal. macha allah am na problème. waaw baax na samedi incha allah samedi waaw. léegi man nga mën nga mën nga continuer après nga conclure ñu loolu mawtu maanawiye bi ak kii bi ñu garder ko pour samedi ak xas ñaari xasida yooyu waaw sax ngay tënk boobaa da ngay yaatal rek incha allahu taala waaw waaw baax na baax eh, na kon liñ ci liñ mën a tënk hmm, hmm. bismillah bismillah bismillah allez waaw waaw bismillah waxal waxal après ma doo kii euh, bu boobaa tamit bu la neexee sax même marsiya saytu nur bi mën nga ko mën nga ko firi parce que marsiya bu ama am solo la waaw mën nga ci mm, mm, mm. waaw baax na kon euh, kon li ma lenn rek laay wax euh, hmm. lenn rek laay wax fii pour euh, pour pour tëjee ko partie bi nii moom mooy que oustaz dem na waaye bàyyi nañu am njàngale moo xamante ne daanaka dafay doon suñu wéttal ci ñun mhm. moo tax waa ji dafa doon wax nag loo ndax ko jooy wala duñ ko jooy mu ne dinañ ko jooy ndax wéetaay gi ak miineel gi rek ah. waaye duñ ko jooy ndax lim ñu waroon jox ngir ñu mën a dund sans moom yëpp jox nañu ko walillahi alhamdu te maa ngi lay gërëm bu baax eh, ñu jàpp beneen jotaay incha allah kon eh, samedi incha allah maa ngi ziar baax Seydi incha allah incha allah ñu ngi lay ñu lay sant di la gërëm di di la gërëm particulièrement ci temps bi nga jël xam nañ ne sa temps xat na lool te suba jour ouvrable la waaye te chef d' entreprise nga liggéeykat nga euh, xam naa ne mbokk yi nga xamante ne ñoo toogoon di déglu hmm. on était à plus de deux cent personnes actuellement ils son à cent quatre vingt hmm. donc mbokk yooyu tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax ku bëgg lu baax rek moom mooy teewee jotaayu waxtaan yu baax am na ñoo xamante ne ñu ngi ca leneen di ñaan yàlla li nga fi waxtaan oustaz yëpp yàlla nekk ni brasse ñaal ñu. nekk lamp buy leeral suñu yoon te yàlla nañ ko mën a roy. Ah, bokk na nag ci li ma gën a kontaan loo ci wax ji. Hmm. mooy li nga fi wax yëpp ku am yitte mën na ci roy. maanaam wax nga fi ci nit koo xamante ne ni jaar na ci ay sëriñ pour jàng ko am yitte mën ngaa jaar ci ay sëriñ jàng. wax nga ci nit koo xamante ni jël na tariqa bi mu ko waree jël ko am yitte mën ngaa dem jëli tariqa soxla woon nga yéene da ngay xaar ba nga pare wala ba am quarante ans wala nangam. yaakaar naa bi mi am onze ans la jël quatre vingt et soixante onze. Mm. wax nga ci nit koo xamante ne quatre vingt mm. donc euh, wax nga ci nit koo xamante ne nii góorgóorlu na ba am lijaasa mm. euh, ku am ku am yitte mën ngaa góorgóorlu ba am lijaasa jël tariqa 17 ans am 93 Amad lijaasa 2010. loolu yitte bu kawé moom 2010 hmm. bi tamit wax nga ci nit koo xamante ni góorgóorlu na ba jàngale daan na ay di jàngale daan na xiifal boppam hmm. daan na euh, je veux dire. Hmm. loolu ko am yitte ñun mën na ko ko danañ ko gën a fonk waaye duñ ko mën a roy ndax loolu may yàlla la dëgg la dëgg la alors façon waxtaan bu mel nii wax dëgg yàlla dañ la ciy hmm. gërëm gërëm amul àpp te man euh, sànq loolu laa wax ci introduction bi bokk na ci li tax man oustaz Ahmad Ba mu bokkoon ci ñi may mën a déglu di jëriñu ci ñoom hmm. parce que man damaa bëgg même soo may waxtaanal ci baay même soo hmm. may waxtaanal ci Cheikh même soo may waxtaanal ci yonent bi nga waxal ma ci koo xamante ni su ma jugee ci waxtaan boobu dinaa ko mën a roy waxuma ci moom loo xamanteni ni dinaa ko mën a roy maanaam bul ma wax loo xamanteni dana yokk sama mbëggeel naam mais du yokk sama yitte ci den alors ñu ngi lay ñu ngi lay sant ci loolu bu baax di la gërëm di la ci ñaanal yàlla bu samedi incha allahu taala ñu continuer li des ci parti bi yàlla na yàlla may la wirasatu ci moom wirasa kaamila xam-xamam saatoom maarifatoom zawqoom shuhudam ak euh, surtout comme yàlla na ko yàlla may yàlla nañ ci yàlla may ñun ñëpp cër fate lawlaw yal yàlla fàttee leen yal na yàlla leen damm-damm bi yàlla ngeen bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la yàlla di ci barke Baye barke Cheikh Tidiane jërëjëf si Seydi jazakumullahu xayran yal na bu baax a baax ñu ngi leen di ñaanal bu baax jërëjëf ba samedi ak jàmm incha allah